bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi waxdahu walsalaatu walsalaamu ala man laa nabiya baada nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mboole mbokk yëpp di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu tawxiid mbokk yi tawxiid day lu jara ñaan yàlla la di ko ñaan guddi ak bëccëg ndax tawxiit mooy lépp doomu bu fekkente ni amul tawxiid mënta tabax dara ci diggante ak boromam lu taxaw mbokk tawxiit képp ku ko amul sa dara mënta baax ci sa digg ak yàlla mbokki yi déglu fan yi benn sëriñ daara boo xam ne saa borom yàlla daa dogal ci kawam ab natt eh, ab sooroolub jàkka wàcc ci kawam mu dal di faatu mook doomam muy sëriñu daara boobu yi ngeen doon dégg Cees <coughs> yàlla ko yàlla yërëm mook doomam jooju muy lu metti nag ci eh, gisiinu doomu aadama waaye nag saa borom yàlla moom mbir yi nam ko natte noonu la koy tërale kon aw tiis la li ñaan mooy suñ borom tabaaraka wa toftal ca njëggal ndax aw dee lu mu metti metti ci gisin bit bu ca saa borom yàlla toftalee njëggal dootul metti ca ka deega wàccoon ci moom ndax ñu mel ni saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain suñ musaane ne ci xare bi di xare euh, ba nattu ñëw maanaam nattub dee ñu rey leen léeg-léeg reyin yee day mit am na ci ñoo xam ne dañuy gor seeni baat am ñoo xam ne seeni bopp am ñoo xam ne seeni tànk waaye saa yàlla suy bégal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi nga xam ne des nañ fi lam leen di bégalee mooy ñii nga fa xam ne dañoo faatu ci xare kat ñoom seen wàccuwaay mooy aljana nga loolu mbégte lay doon mu mag ci ñiñ fi bàyyi kon lu deega metti woon metti woon ci seeni xar kanamit suñ jàngee ayaat yooyu rek dañuy daal di bég xam ne la ca gannaaw deega mooy aljana mbokki jullit yi waa nga xam ne ndeysaan dafa toogoon ci biir jàkk ji di jàngale uuf doomam soorool bi daal di wàcc ci seen kaw mook ak ay xale am am ñoo xam ni génn nañ waaye sonn nañ waaye moomit it ndeysaan mu faatu ak doom ci muy aw yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko yóbbu ko aljanna firdaws waaye li ma gën a metti ci mbir mi mooy ña nga xam ne dañ doon introsé mbokki waa ji da caa am kenn koo xane rakkam la mbaa magam bañ koy introsé bokk na ca lam wax mooy suñu mag jii kat wala boog suñu waa ji li mu liggéeyal baay diw su ëllëgee yowmal am su ko ko bàyyi diw fayul kon bu kenn yaakaar ci bàyyi diw dara maanaam mbokk yi xool leen wax ju garaaw ji doomu aadama joo xam ne yàlla da koo natt mu faatu ci faatu goo xam ne da koo bett lool ab soorool wàcc ci kawam mu leer la ni kii moom ci faatin wu yéeme ci la faatu ku toog di jàngale uuf doomam ab soorool mbëbëx ci kaw mu faatu manam yow amul lenn lo meuna waro ci mbir momo ludul ñu talal la ra nga nan lim daan liggéeyal bay diw su ko ko bay diw fayul yowmal khiyam bu kenn yaakar ci bay diw dara xol leen lu garaw li lan jublu jubluwaayu ma indi xissa bi moy ñu bari ci nit ñi su fekkente ne amuñu tawhid dootuñ mën a waaru maanaam ñàkk tawxiid looloo tax mu garaaw doomu aadama su amul tawxiid maanaam dara du ko waar mbir lu mu garaaw garaaw moom du ca yéemu du ca yéemu day sëgg rek bàyyi mbir yi di jàll moo tax nit ki war a xeex boppam ba defar diggam ak yàlla ba am tawxiid nga xam mbir yi da koy delloo ci borom asamaan ak suuf xam ni mbir yi mbiri yàlla la yàlla rek moom mooy dogal mooy ki nga xam ni mooy programme programme yi ci ndigalam lay bàyyi ko su sa tawxiid baaxee nag loolu mooy tax sab xol fees dell ak leer ba ngay mën a nangu dogali borom bi tabaaraka wa taala la yàlla tabaraka wa taala capable di ko def ak la mu sañ di ko def ak lam mën di ko def ak lam xam di ko def muy mboolem loo mën a gis ci kaw suuf nga xam ne day dugg ci buntub alqada wal nga nangul ko yàlla xam ni mbir yi yàlla ki ko maîtriser mooy ki koy doxal ci nim ko neexe ak fum ko neexe ak ci kum ko neex ëllëgit bu sa tawhid léré da ngay xamné ne ëllëg yi la nga xamné yalla kat moy borom ëllëk moy dajale nit ñi ëllëk kenn ku ci nekk moy joxe ndigal nga dekk kenn ku ci nekk moy yebal ñaari malaika ci yow kenn ki dila womat kenn ki jital la ñu indi la. ci sàppe si nga taxaw fekk nga nekk ku rafle lool jaaxle lool wéet lool sa baay du la jege sa yaay du la jege bu dee jigéen nga woon sa borom kër du la jege say doom duñ la jege bu dee góor nga sa soxna du la jege say doom duñ la jege bu dee nitu mbooloo nga woon koo xam ne da ngaa yoroon ay talibe wala ay jaam wala ay dag yaa xam noo ko mën tudde kenn du la ci jege yow kase yaay wéet am malaika wamat la jitu nga top ci gannaawam men malaaka ne ci sa ginnaaw jital la nga ne ci digg bi waaw mbokk li, lu jara bayyi xel wa jaat kullu nafsin maaha sa'iqun wa shahid li wax yalla la du wax nit bepp bakkan bu meuna don da nga ñew am ku lay wommat am ku ne ci sa ginnaaw nga taxaw di xaar sew tur yàlla woola laaj la ay laaj yoo xam ne sa baay du ko tontul sa yay dula ko tontul yaa koy tontul sa bopp ku xam lii wallahi doo fi nekk mukk di jël tol ni yowmal xiyaam di jël lu tol ni ak fay di ko askanele sa moromub jaam boo xam ne bu ngeen daje woon yowmal sax soo ko nee nu ma tudd munta jaar ci saw tur ndax laata laa yàlla bind moom faatu la xamula la yow yaa ko xam rek ndax histoire moola la nettali ay mbiram waaye moom moom xamula ndax laata ngaa juddu moom génn na àddina al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawm inna allaha sariul xisaab yàlla nee na bisa ngi ñëw boo xam ni bépp bakkan bu mën a doon la nga doon fàggu danaa la ko fay te bis booba yàlla nee na du ma fa tooñ kenn ndax du bisu tooñ te yàlla jomm na muy tooñ ndax du tooñ te yàlla nee na inna allaha sariul xisaab saa borom yàlla ku set ab atte la ku ko juble ab atteem lu maandu la mbokk yi lii dañ koy bàyyi xel waaye taxaw ñu dékk la micro doomu aadama faatu ci faatin wu mitti nga war ko ñaanal njéggal nga taxaw naan bu ko diw sàngam fayul bu ëllëgee bu kenn yaakaar ci diw sangam ak fay mbokk yi kii ak faatoom lan la joteeg diw sangam lan la joteeg moom moo tax nit ñi dañ leen jàngal soo demee ci dëj yi ak ci rob yi da nga ci borom asamaan ak suuf doomu aadama day faatu nit ñi war a tudd yàlla war koo ñaanal war a dellu ci yàlla waaye duñ ko def dañuy daal di topp ay wax yoo xam ne amul dara dara dara dara ci delluwaay ci alxuraan wala sunna ah bu ko diw sàngam jéggalul kenn du ko jéggal yàlla na ko diw sàngam teeru yàlla na ko diw sàngam wallu yàlla na ko diw sàngam fay koo xam ne yàlla yónniwu ko wàcciwul woon ci moom ci aw ci moom aw lay faatu na bu yàgg te xamu leen sax yéen ñiy wax di tudd aw turam الله أكبر بوكي ندلو سي خالي تباي تياخاني تياخان باخول يالون يالا ورسغل توحيد يالون يالا ورسغل توحيد سوني امول توحيد رك سوني دارا دو مانا باخ موتاخ توحيد رك مو وور يالون ني بروم بي تبارك وتعالى موسل سي بوكالي تي ورسغل ني توحيد سي كاتنام ak يرمندم والله اعلى واعلم وبارك الله فيكم